kon dañuy jàll ci euh, beneen commission bi ci toppoon ñoom ñoo doon liggéey ci njàngum majalis ku ne xam na ne njàngum majalis njàng la moo xam ne boroom xam-xam yi ngi fiy dégg xam-xamu diine xam-xamu làkku arab lu ci ëpp ci daara yooyu lañu génne muy daara yoo xam ne yu fi cosaan la yoo xam ne dañ koo war a sàmm ndax nit ku ne looy loo am muy lu am njariñ moom nga war a jéem a tatuwiir maanaam jéem koo jëmale kanam jéem koo sàmm moo tax sëriñ bi jagleel ko ci daara ji pàcc bu am am solo ña doon liggéey sëriñ Mbàkke moo nekkoon ki nga xam ne moo leen doon euh, saytu jiite leen kon moom la ñuy jox kàddu gu moom it ci fukki minute ak ak juróom la ñu liggéey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 ñu ngi nuyu mbokk yëpp ak kilifa yi tàmbalee ko ci sëriñ Ahmad Badawi mi teew te jiite liggéey bi sëriñ bi tegoon lépp ci loxoom di siyaare sëriñ baax di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq ak galemi bi yëpp di ndokkeel mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo àndoon ci liggéey bi ba sunu borom dafa ci tawféex ji euh, sëriñ Sam lim ko waxe liñ doon ànd ak mbokk yi di ci liggéey di ay mbokk yu limu ci wàll gi nga xam ne ci njàngum majalis ci lañuy yëngu ñoom la sëriñ bi sàkku woon ci ñoom ñu tegal ko lam soxla ca daara ja ci njàng moom ndax niñ ko xamee sëriñ bi daa waxoon ne njàng mu tàmbalee ci suuf ba ca kaw kon ni ko sëriñ Moustapha Diop waxee léegi ci leeral gu am solo gi tënk bu am am solo gone googu nga xam ne jàng na alquran mokkal ko ci anam googu dañuy jàpp ne li ci war a tege mooy mu jàng xam-xamu diine moo tax ci majaalis biñ teg nii euh, ñeenti mbir moom lañ doon liggéeyloo ba ci njëkk mooy minhaj ab curriculum boo xam ne ci la njàng mi lalu làmboo li tax ñu jàng ak li ñuy jàng ak niñ koy jàngale ak ni ñuy natte njàng mi yooyu moo nekk ci biir ahda ci biir mu e, minhaj bi waaye xalaatit fi ñu jàng fan la lu laaj ak ñi koy saytu ñan la ak doxin wi tëralin wiñ tëral njàng mi mel na ñeenti mbir yooyu nga xam ne charte yi ñu duggee ci daara jeeg jàngalekat bi luñ laaj luñ soxla ak njàng mi ci yan marxala lay tënku atum njàng mi fan lay tàmbalee fan lay yem yu mel noonu moo ci nekk kon ci tënk bi ni ko sëriñ Sam ci minute yooyu mu wax danañ ko jéem a tënk li ci njëkk mooy ahdaaf yi tax ñu sampu daara ji xam nañ ne njàngu majalis ni ko sëriñ sambooxe moo ànd ak lislaam ñëw ci réew mi mag ñi jàng diine ñëpp ci njàng moom lañ ko jànge te tey mën nañoo wax ne ba tey jii ñu yëngu ci xam-xam dabaguñ leen ak système buñ mën a jàngee dabaguñ mag ñi ci xam diini ak dégg ko ak dund ko jàpp kon ne tëralin wu am solo la woo xam ne buñ ko dundalee boole ci li jamono laaj dana tax mu ëpp njariñ ñu wax ne liñ jublu ci majalis bi nga xam ne ki ci jaar bu nappee li ñu soxla ci moom mooy former ay boroomi xam-xam yoo xam ne ay nit yàlla lañuy doon takwiinu ulama rabbaniyin dañuy xam waaye dañuy doon nit yàlla di dund yàlla nekk ci kaw suuf ni yàlla bëgg nit na fi ci dafar dafaru ak dafare daara ji ku mel noonu la bëgg a dafar koo xam ne bu noppee li ñu soxla ci ay boroomi xam-xam ay imaam ñoo xam ne danañ mën a jàllale risaalatul islaam fépp mën ko yóbbu ci ñëpp ku mel noonu la lañ bëgg a defar ci daara ji waaye fexe ba sàmm it njàngum cosaan moomu bokk na ci jubluy daara ji sàmm njàngum majalis mi nga xam ne noonu ñu ko waxee ndonal réew mi la te it meññatam meneen njàng mu fi muñ fi dégg mu baax njàng moomoo ko jur ñu bëgg a sàmm ndono loolu nag sàmm ànd ak tatwir ko mooy gën koo jëmale kanam waaye gën koo dëppale ak jamono loolu ci tënk mooy jëmuwaay yi nga xam ne ci la daara jëm kon daal bëgg naa defar ay nit ñu sotti ñoo xam ne li yàlla bëgg ci nit bu noppee danañ ko man danañ xam li ñu war a xam mel li war a mel di def li war a def liñ war a def nag bokk na ci jàllale ndigalul yàlla li moom àgg fépp àgg ci ñëpp kon jumtuwaay yooyu laaj yëpp ñu yóbbal leen ci yóbbal bu doy bañ mën a tasaare loolu ci anam gu mucc ayib li na ci biir daara ji nag muy muxtawayaat yi xam-xami sharia la ak xam-xami làkku arab bi nga xam ne moo mënuy surtu dégg sharia te jàngoo ko ak nag yeneen xam-xam yi nga xam ne àddina ko soxla ñu koy tudde al ulumul insaniya wal kawniya te dund gi laaj ko euh, sant gi ñu sant ñu dundal suuf nekk xalifa ci kaw suuf laaj ko xeeti xam-xam yooyu yëpp incha allahu taala danañ ko jàng ci daara ji kon xam-xamu sharia ci jiitu ak ndab li ko ëmb muy làkku arab waaye niñ koy jàng it yoonu jàngin la woo xam ne danañ bàyyi xel démb ni ko sëriñ Moustapha Diop di waxe léegi la rafetoon démb dañ koy téye waaye yokk ci li rafet tey mokkal rumbux am njàng loolu xamoon nañ ko ci njàngum démb waaye yokk ci nag dégg gu yaatu ak man koo jariñoo gi nga xam ne njàngum tey indi na ko tàggat nit ki ci lim xam lu ne mu fexe ba man koo jëfe waaye man koo jàllale ci anam gu mucc ayib loolu lépp danañ ko sóoraale ci niñ koy jàngalee xëy na niñ baaxoo woon a jàng ci majaalis nga xam ne sëriñ bi day toog donc bu ñëw indi sab téere mu tëral la keneen ñëw indi téere mu tëral la nga xam ne bu xëyee ba tisbaar man na fee jàngal lim bu baree bari ci ay dong kenn ku ne sa bindu bopp anam googu moom ak soppi dana ci am di jàngal nit ñi par ay groupe nga xam ne dara su bane day am ñu koy bokk di ko jëlandoo su boobaa dana tax jàngalekat bi dana gën a man a néew lu muy joxe ci bind dana tax mu gën ko mën a waajal waaye dana tax mu gën ko mën a yaatal dong yit it danañ gën a mën a jël kon njàngum mbool par ay groupe lay doon ñi bokk ñu ne ñu boole leen lu ñu leen di jàngal ci anam gu mel noonu ci la daara ji dox insha allahu taala waaye anam gi ñu koy leer la du yem rek ci tekki baat yi jàll tekki baat yi la jéem a tënk maanaa yi waaye jéem a joñ jeñ xale yi ci ñu génne nuñ seet nuñ ko jariñoo seet nuñ ko jariñoo gën a yittewoo maanaa yi ak li baat yi di tegtale ci baat bu ne ñu wutal ko lu muy tekk ci wolof rek jàll noonu waaye fexe ba it li ñuy jàng ñu yeew jëm ko tënk ak li ñuy dund ba dars buñ jël bu ne ñu xam ne am na fuñ ko soxlaa ci waaqowal xayaa bañ mën ko faa yóbbu jariñoo ko fa tomb yi nga xam ne it sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu miinoon nañ ko lool mu ko doon ko jàngalee te doon ne ko ci yonent bi alayhi salaam barab bu laaj loolu it jàpp nañ ne ci méthode yi jëfandikoo ngir gën a leeral njàng a gën ko tënk ci lay bokk ak di tënk dars yi ci di ko tënk yan waaye di ko tënk kitaab bi yéen nga xam ne darse bu jeex bu ne danañ ko mën a tënk wax xulaasab darse ba Euh, dana tax donga bi koy jàng gën ko mën a dégg gën ko mën a jariñoo bu ëllëgee waaye yokk ci ci njàng mi loo xam ne xëy na daan nañ jàngale ci majalis njàng mu yaatu mu am solo waaye dawuñ ci àgg mooy di natt njàng mi fi njàng mi tàmbulee fi lay ànd dars bu ne dana am natt ci mujj ga téere bu jeex bu ne dana am natt marxala bu jeex bu ne dana am natt ba donga bi su jeexalee dana am fu ñu ko natt ne foofa la toll ci njàng ba bu génnee dana xam dana ànd ak kayit wuy firndeel ne foofu la toll bi muy génn loolu it bokk na ci yi nga xam ne danañ ko bàyyi xel jàng dong bi jàng fi bu noppi it nag dana am marxala bu ne dana ñëw ci maraxil yi buy jeex dana am ay imtixaanaat ay natt yuñ cee def yoo xam ne ab shahada moo koy firndeel su ci gone gi jàllee ñu jox ko shahada bi mu mën a jàll ci benn marxala marxala bu mu jeexal bu ne it am na bu mu tollool ci njàng mi ci bitti moo xam ne bu fu bëggee yamale njàngam dem seeti leneen feneen dana mën a am paseb bu demee mën a wéy wéyal am njàngam barab yu njàng yit nag ay classe la ak ay dëkkuwaay ndax ni ko sëriñ bi santaane ci njëlbeen gi danañ jël lu mat junni dongo yoo xam ne ci daara ji la ñuy dëkk di fi jànge ñu yor leen fi kon far baraba yi ñuy dëkk lam laaj danañ ko bàyyi xel plan yi ñu tër lépp nga ca ak jàngukaay yi ak iddaara bi nga xam ne moo leen di saytu loolu lépp ci barab yi jànge ku dellu ci plan yi nga xam ne moom lañ defar ngir di ca tabax di ci liggéey liggéey ba lépp ëmb nañ ko ci ñi saytu njàng mi it ab hay'a idaariya la boo xam ne sayxu majlis moo koy jiite incha allahu la dana am kuy saytu njàng mi ñu koy tuddee mudiru dirasat dana am ab gérant général boo xam ne mooy topp lépp dana am secrétaire général boo xam ne mooy taxaw lépp lu ñu fay bind dana am kuy saytu koppar ya nga xam ne moo war dugg ci daara ja dana am kuy saytu dëkkuwaay ya ak dund ba ñoo ñëpp ak ñi jàppale ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy idaara yoon yi nekk ci biir daara ji nizaam bi muy doxee nag sart yi ci jiitu mooy daara ji ki ci dugg ka ci jiitu mooy dañuy sart na mokkal alquranul karim ndax sëriñ bi dafa wax ne aw jiw lay wut daara ji da cee bëgg a wut aw jiw woo xam ne bu ëllëgee mag ñi fi sëriñ bi defaroon ñu leen mën a wuutu ci woote yanu daawo bi yóbbu ko ñu lañ cee waajalee ba nga xam ne ñooñu buñ génnee lépp lu mat a defar danañ ko mën a defar ñooñu nag daa war a doon ñu tànn moo tax dañuy jàpp ne ñu mokkal alquran lañuy doon du tee nag système bii ñu yor muy njàng mi nii fee ca daara ja moom ñoo ne fay dugg waaye système bi it day du yem ci daara ja sëriñ Sam ju ñu ne ko sànq bépp kuy jàngale majaalis ci dëkk bi dañuy bëgg nga yor kooku nag mën naa bañ a tënk moom ci bu koy jàngale ko mokkal alquran. waaye ñey ne fee ca mujjamax ba moom ku wattu alxuraan génne ci daara ji sëriñ Moussa doon leeral léegi wala mu génn ci jeneen daara bu dikkee ñu saytu ko gis ne wattu na alxuraan moom lañ fay jël kon ki ci jiitu mooy ne wattu alxuraan te it faaw ñu seet ko nag dana am imtihaan tahdid al mustawa ndax mën naa tàmbali jàng leneen sëriñ Moussa ni mu waxee seen programme am na tuuti as njàng buñ gisee ne njàng mooma am na jeexit lam laaj ci tëb ko danañ ko tëb ci classe yi ba tolloole ko fi mu toll waaye dañuy wax ne ki ci dugg bu mu am lu ëpp fukki at ak ñeent bu mu am lu ëpp fukki at ak ñeent ñooñu daal lañ ci jël bu ko defee nag jàngalekat yi nag dañ ci sart ñu doon ay tànneef ndax kuy takk takwiin ay ulama rabbaniyin ñaar yi war naa dañ ci yow war ngaa nekk aalim ci li baat bi tekki war ngaa nekk ab rabbaani yit doo nitu yàlla koo xam doo yam ci sole ay maana waaye dangay joxe it ay duruus ay ci suluk nga xam ne njàng mi ànd ak ab yar la fas yéene daal dekkal daara ja sëriñ bi sosoon defar ci mag ñi ñu fexe ba it daara ji dekkiwaat ci biir mu jamoo Cheikh Mouhamadou Mountakha bii nga xam ne mu jamoo Cheikh Ahmadul Xadim la ki fi jàngale it day jàpp ne ku tënku ci li sëriñ bi tënke la li ñuy tudd ay thawaabit diine yoo xam ne ñun ñoo ko bokk ci wàllu pas ci wàllu mazhab ak ci wàllu suluk soxla nañ ki fay jàngale tënku ci yooyu ndax ñi ñuy formé ci loolu lañ leen di formé ndax mooy ndono li sëriñ bi bëgg ñu sàmm ko maraaxil yi njàng mi amit ñett la ñetti marxala la marxala asasiya marxala mutawasita marxala mutaqaddima ak marxala aliya marxala bu ci nekk ñetti at lay doon insha allahu taala nga xam ne bu ñeent yi jeexee dañuy jàpp ne xale bi dana am niveau licence ci xam-xamu arab ak lakku am xam-xamu diine ak lakku arab boo xam ne su bëggee wéel am jàngam am doctorat ci université yu mag yi wala ci biir université bi dana ko mën a wéel étape bu ci nekk it mën na faa jóge jàll feneen mën naa jàng ñetti at am niveau certificat mën naa jàng juróom-benn at am niveau brevet wala mu jàng juróom-ñeenti at am niveau baccalauréat dugg ci kulliya bi wala mu wéy ci daara ji ba am licence lu ci nekk ay bunt yu ubbiku la waaye jàpp nañ daal ki fay génne ab licence la fay génne insha allahu taala ci xam-xami diine ak làkku arab atum njàng mi it octobre lay tàmb tàmbali di jeex mois de juillet li ci nekk ci ay bis yu ñu noppalu tënk nañ ko kon ñaari ñaari weer mooy doon bër gi waaye am na bis yu noppalu ci yoo xam ne yëpp dañuy bàyyi xel barab bi yooyu yëpp tënk nañ ko ci biir liggéey bi loolu daal ci tënk li daara ji ëmb doon daara joo xam ne am nañ yaakaar ci ne bu taxawee lu bari liñ ñi jàmbat ci ndaw ñi njaboot gi incha allahu taala yàlla mën na ko saafara te jaare ko daara ji ñu ngi ñaan ko yéene te di ci mottali yéene sëriñ tubaa ak mag ñi ko ji mag mag ñi wuutu woon sëriñ Mutula ñëpp suñ Mouhamed Cheikh Seydul Xadim ñëpp amoon yéene ji yàlla àgg la ci moom naalu yi ñun ñëpp ñu fekke ko ànd ko moom ba meññet mi ciy génne ñu teel ko jariñoo daara ju am yaakaar la joo xam ne jàpp nañ ne it ñëpp ci war a jàpp programme la boo xam ne it nii mu nekk ci daara ja noonu lañ jàppe ne képp kuy jàngale ci dëkk ci yoon wi ci yoon wi bu noppee mooy doon sa programme booy jël bu ko defee diplôme bi di fa bàyyi ko di jóge ci mu jamaa bi am mu njàng mépp di ko dooxal ci dem gën a waree maa ngi jéggalu di bàllu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu